mbokk yi jërë ngeen jëf si toppa bi ngeen a toppa Gambian Talents Promotion ñu indi leen xibaar euh, yi nga xam ne moo lëmbi réew mi fu ñu waaye di mun a bàyyi xel sant ak ngërëm euh, daal dina la ñeer su ko defee rek ñu rek tàmbali Euh, li nga xam ne daal euh, moo di euh, xibaar yi ki ñu xamee si Papa Ndiaye moom Papa Ndiaye taxaw taxawaay indépendant pour ut place yi meyo si woote yi nga xam ne moom la ñoo dikmal si mu di woote yi gox goxaan yi nga xam ne ñu ngi ko war a amal fukki fan yi ak ñaar si weer wi nga xam ne moom lañ nekk moom Papa Ndiaye réeroo bi nga xam ne doxoon na si diggante moom ak Makan bi nga xam ne ñooy saytu wàllu sànni karta fii si biir réew mi di si e wax nañu daal réeroo boobu dafa mel ni waxtaan nañ ba juboo daal dina si am li woon li woon réeroo bi daal mooy Euh, ñoom IEC dañ joxe woon ab ndigal pour rek Papa Ndiaye mu daal di wecci couleur gi nga xam ne moom la moom lay faral di jëfandikoo gannaaw bi nga xamee ne ñoom IEC wax nañ ne couleur gi nga xam ne moom la Papa Ndiaye di dafa doon couleur boo xam ne moom la coalition bi daan faral di jëfandikoo waaye moom Papa Ndiaye bi nga xamee ne xamal nañ ko loolu moom it si la dellu si waat euh, si li nga xam daal moo di màkkaan boobu di IEC xamal leen ne yéen yéen a ma jox li nga xam daal moo di couleur gi te nag pour ma war koo soppi loolu nag dafa tardé gannaaw bi nga xamee ne su ma ay jegeñaale euh, suma ay farandoor ma ay soppe ñoom daal euh, couleur boobu lañ daal taamu euh, bi nga xamee nag moom it daal dina leen joytu loolu si la ko nag màkkaandi di IEC nangul ne ko nag mun nga continuer kon di jëfandikoo couleur gi waaye nag dañ ko tegal ay sarta maanaam daal wax nañ ko daal na fexe daal xamal li nga xam daal moo di ay farandooram ne leen daal moom nekkut nag ab candidat boo xam ne coalition bi la taxawal maanaam daal nekkut ne si turi coalition bi la la taxaw donte sax seen couleur la moo daal di jëfandikoo xamal na xamal nañ ko tamit ne ko da nga fexe euh, bul tamit jëfandikoo nataal boo xam ne euh, njiiti réew di président Adama Barrow euh, nataala ma fa nekk sarta yooyu nag tegal nañ ko ko moom ki nga xam daal moo di Papa Ndiaye ba sax waxtaan wax nañ ne daal am na si diggante moom ak màkkaan bi sax li nga xam daal moo di ab d'accord nemmeeku nañ ko si li nga xam daal moo di ab mbir moom noonu suñu sukkandikoo si suñu ay naataangoor di Standard News Paper ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi Euh, ki nga xam ne moom lañ xamee euh, si Hawa Ceesay euh, Sabaly moom nag ab looya la maanaam ab layookat la moom nag bi nga xamee ne teewaat na beneen yoon si kanami kuréel gi ñu xamee si commission of inquiry wala Jammeh commission xamal na leen ne daal ki xam ne moo fi nekkoon njiiti réew di Yahya Jammeh moom nag mosoon naa bañ ne daal dafa am daal ab nangutoo boo xam ne dafa dox si diggante réewu Gambia ak réewu li nga xam daal moo di Nigeria mu aju nag si wàllu daal li nga xam daal mooy diw moo ki nga xam ne moo di Hawa Ceesay Sabaly mu nag lii ki nga xam ne moo fi nekkoon njiiti réew di Yahya Jammeh daf ko bañoon de waaye nag euh, gannaaw gi moom ki fi nekkoon njiiti réew di Yahya Jammeh moom nag daf ko ooli woon moom Hawasi Sabally jamono jooju nga xam ne moom nag la defoon ab ministre wala jëwriñ li nga xam ne moom la dénkoon mbiri yoon ak yoonal gannaaw bi nga xam ne sax dafa am daal ab néegu attekaay euh, boo xam ne mu ngi foofu si réewum euh, li nga xam daal moo di Angleterre gannaaw bi nga xam ne néegu attekaay boobu nag dañ bëggoon a daal indi ab dogal si lu aju li nga xam si li nga xam daal moo aju rek si wàllu daal li nga xam daal moo di daal nangutoo boobu ne Eh, dox na ci digënté réew Gambie ak réew Nigeria mu aju nak ci walu dal eh, li nga xam daal di ab diw way mom xawa a ci sabali saabali na de né dal ki nga xamné mo moo fi nekkoo njiite la dafa bañoon dal li nga xam daal moo di nangutoo boobu waaye nag gannaaw gi bi nga xamné ne nag néegu attekaay boobu si réewum Angleterre olu nañ len wala sax oru nañ nguuri président eh, Yahya Jammeh si jamono jooju pour ñu indi ap leral si li nga xam daal moo di mbir moomu si la daal mujjee daal nangu daal li nga xam daal moo di daal nangutoo nga xamné doxon na ci digënté réew Gambia ak réewum Nigeria mu ajural si wàllu déw suñu sukkandikoo si ay kàddoo moom xaw a si sabali euh, lii nag mu ngi ko xamal kuréel kuréel euh, gi nga xamee si commission of inquiry wala jaane commission suñu sukkandikoo si suñu ay naatango di euh, standard news paper ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi suñu ab naatango taskatu xibaar Fally Fadera noonu lay wuyoo nga xam ne daf daan faral di joxe xibaar ci radio yi fii si biir li nga xam ne moo di réew mi moom suñu naatango boobu nag wax nañu daal daal daal dinañ ko jox ab maxaama bu kawe de maanaam daal tabban nañ ko daal boole ko daal si ñoo xam ne daal ñooy rek daal di faral eh, di tasaare bépp xibaar boo xam ne mu ngi war a jóge ko si màkkaani eh, li nga xam daal moo di njiiti réew mi moom Fally Fadera laata sax ñu ko doon tabba di ko jox place boobu moom nag mu doon daal mu doon liggéeyi si li nga xam daal moo di University of the maanaam daara ju kawe ji ah, fa la waaye nag jamono ji wax nañu nag nguuri président Adama Barrow tabba nañ ko daal jox nañ ko beneen maxaama ah, boo xam daal dafa nag daal liggéey ah, si màkkaani li nga xam daal moo di njiiti réew mi maanaam daal bokk si ñi nga xam daal ñooy faral di fésal tas daal bépp boo xam ne dina war a jóge ko si màkkaani li nga xam daal moo di njiiti réew mi suñu sukkandekoo si suñu ay naataango di standard newspaper ñu rek daal di Euh, ndokkale suñu naataango boobu noonu di Faly Ferreira euh, ñu wëy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi ab daal banque boo xam ne ñu ngi leen xamee si Guaranty Trust Bank ñoom nag ñoo def ab ab jëf ju rafet jël daal koppar bu toll si ñeneenti téeméeri junne euh, si koppar yi daal li nga xam daal moo di dalasi daal di ko dimbale daal yenn màkkaan yu am solo fii si biir li nga xam daal moo di réew mi bokk na si màkkaan biñ xamee si SOS Children's Village mu di ab béréb boo xam ne ay daal tout tànk lañ faree faral di yar ñoo xam dal ay njërim lañ euh, euh, wax nañu dal màkkaan bi di bank bi dal copper euh, dal jël nañ ko dal di jébal màkkaan bobu wax nañu ak li nga xam daal moo bi di garantie trust bank jël na jëlat nañ benen copper jébal ko dal ab hôpital bo xamne mu ngi fofu ci diwanu bundung pour rek hôpital bi dal di ko ci dal ay rek mbir yo xam dal hôpital bi dal dina ci soxé suñu sukkandikoo ci suñu ay natango di standard news paper ñu wéy ak yeen ba léegi ci li nga xamne modi xibaari li nga xam daal moo biñ xamé ci gambia press union mu di jotaay bi nga xam ne moo ëmba taskatu xibaar yi fii si biir li nga xam ne moo di réew mi si rek fan yi ñu weesu ñoom it daal bokk nañ Euh, si jo xamne euh, ñu ngi doon magal bes bi nga xamne ne mom lañu lañ euh, mbirum tassam xibaar si aduna wërngal këpp ñom ñi nga xam ne ñoo di dal bi di Gambia Press Union loolu waral nak ñomit ñu ko doon magal wax nañ si ab ndaje bo xamne ñu ko doon amal ay kilifa yu bari teewe woon nañ li nga di ndaje moomu bokk na si ministre wala jeewrin ji nga xamne mom moom denk mbiru jokalante gi fi si bi rew mi ñu xamne ko si Demba Ali Jawo moom bokk na dal si ñoo xam ne daal nañ li nga di ndaje moomu te nak garal na fa dal ay kàddu yo xamne dal li nga daal moo di kaddu yooyu wax nañu nag mu ngi jógee ko si li nga xam daal moo di nguur gi bees gi pare nañ pour baax a pour yaatal daal taskatu xibaar yi ñu mun a amal seen liggéey comme daal ni nga xam daal noonu lañ ko bëggee si rek daal loo xam nag dinañ ko rek daal di tekk si li nga xam ne moo di yoon suñu sukkandikoo si suñu ay natango di point news paper ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi ki ñu xamee si Essa Dampa moom Essa Dampa mi bokk si li nga xam daal président ba bokk si nguur gu bees gi nga xam ne ñoo fi nekk si jamono ji di nguuri président Adama Barrow moom Essa eh, Dampa daal yëkkati na ay kaddu tontu eh, tontu daal ki nga bi nga xamee ne si bés bu bi nga xam ne moom lañ génn moom Mama Kandeh di njiitu parti bi ñu xamee si Gambia Democratic Congress di GDC dafa yëkkati woon ay kaddu moom Mama Kandeh teg eh, daal moo di président Adama Barrow ne daal ki nga xam ne daal moo di président Adama Barrow dafa war a tekki li nga xam ne daal moo di nombal tànkam gannaaw bi nga xamee daal

nga xam daal ay kaddu la yoo xam ne du kaddu yu am xorom maanaam daal kaddu yu taxawut fenn la dee faral di ekkati suma ay kaddu Essa Dampa moom moo ko daal di xamle leneen loo xam ne tamit moom Essa Dampa yëkkati na ko mu ne daal Mama Kandeh si li nga xam ne daal moom la war a taxaw fi mu nekk nii mooy daal seet ana naka la moo jëmalee li nga xam daal moo di partem bi si kanam waaye daal na bàyyi di yëkkati ay kaddu euh, di ko teg si ndor di ki nga xam ne daal moo di président Adama Barrow moom Essa Danfa yëkkati nag kaddu wax ne nag bañut li nga xam daal moo di daal euh, ay daal ŋàññeekat ñuy faral di ŋàññe président Adama Barrow ak nguuram mu ne bañu ko de waaye daal képp koo xam ne yaa ngi ŋàññe nguur gi wala nguuri président Adama Barrow na nga fexe daal sa ŋàññe yooyu nga teg ko rek si li nga xam daal moo di yoon wala rek euh, teg ko si li nga xam daal moo di dëgg suñu sukkandekoo si suñu ay naataango di standard news paper yéen euh, ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi nga xam ne moo lëmbi réew mi muy jógee ko fii si Gambian Talents euh, Talents Promotion euh, fu ñu waaye du mën a bàyyi xel si àdduna si sant ak ngërëm daal dina la ñaal ki nga xam xamee si lawyer Assane Martin moom lawyer Assane Martin moom it nga xam ne dafa sampoon ndëndam pour daal ut place yi mayor si diwaanu Kanifing Municipal Council wax nañu daal si xibaar yi nga xam ne jot nañ ko wax nañu daal fi mu nekk nii moom it dafa sam dafa daal di seppi li nga xam ne moo bi nga xam ne moom la sampoon daal li li waral mu seppi ko daal mooy mu ne nag dafa bugg a dooleel ki ñu xamee rek si Papa Ndiaye eh, moom Papa Ndiaye nga xam ne moom it dafa taxaw taxawaayu indépendant maanaam daal wéeru wut nag si benn parti moom ki nga xam moo di Assane Mati mu ne daal soo seetee li nga xam daal moo di xalaatam eh, wala daal mébét yi nga xam ne moom la amal li nga xam ne moo di tunda bi di candidat municipal kanto dafa mel ni benn mébét boobu la Papa Ndiaye am lu waral nag moom it mu daal pare pour daal di jàppale eh, seppi daal ndëndam jàppale daal ki nga xam daal moo di rak daal Papa Papa Ndiaye uh, suñu sukkandeko si ay kàddoom moom lawyer Assane Martin uh, suñu ay naataangoo di standard newspaper ñoo fësal uh, li nga xam daal moo di xibaar bi ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi lu toll si juróom benni nit wala sa juróom benn ndaw lañ daal di teg loxo ay takkadeer yoo xam ne ñu ngi foofu si diwaanu Gunjur ñoo del daal teg loxo daal lu toll si juróom benn daal ay doomi waa Gunjur li waral nag ñu teg leen loxo wax nañ ne daal dañ teg ab tuuma si kaw ndaw yooyu ne nag ñoom nag dañ bëggoon a yëkkati li nga xam daal moo di ab fitna jëmale ko si daal ab Chinese company bi ñu xamee rek daal si Golden Lake Company mu di ab Chinese company boo xam ne dañoo yëngu si mbiru njaay ak jënd jën loolu waral nag ñi nga xam naa ñoo di ndaw yooyu wax nañ nag ñoom Euh, dañ bëggoon a ekkati daal ay dañ bëggoon a ekkati fitna daal jëmale ko si li nga xam daal moo di daal compagnie boobu tuuma yooyu nag lañ euh, teg si seen ndodda loolu waral nag li nga xam daal moo di takkader yi foofu si diwaanu Gunjur euh, daal di leen teg li nga xam daal moo di loxo teg leen li nga xam daal moo di benn place suñu ay naataango di standard newspaper jokkoo nañ ki nga xam ne moo yore kàddu yi police bi superintendent David Kujabi noonu lay wuyoo déggal na li nga xam daal moo di mbir mi nee na daal loolu lu am la maanaam daal li nga xam daal moo di daal ay ñoñam teg nañ loxo lu toll si juróom benn dal ay ndaw foofu si diwaanu Gunjur tuuma nak bi nga xamne mom lañ tek seen kaw dal moy ñom nak dañ bëggoon a yëkkati li nga xam dal modi di fitna suñu ko ci suñu ay natango di standard news paper ñu wëy ak yeen be legi si li nga xamne modi xibaar bu mag wala dara ju mag juñ xamé si Gambia college modi ab jàngukaay boo xam fa lañ dee faral di tagat ñi nga xam naan ñoo di ay kat si samedi bi ñu weesu dal ñu ngi amal ab ndaje bo xamne ñu ngi doon jox ay lijaasa ñoo xam nag dañ jeexal seen njàng si li nga xamal moo di ndaje moom eh, na si vice président bi nga xamee ñu xamee ko si Fatoumata Jallow Tambajang eh, teewee woon xam naan moo eh, moo na fa kaddu daal a baax teewaayu moo di vice président bi daal Fatoumata Jallow Tambajang si moo di ndaje moomu waaye nag yemul foofu moom Aboubacar Jallow wala Mr Jallow yëkkati na fa yeneen nini kadumana mdal di joytu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne daal moom nañ dee faral di jànkuwanteel euh, si seen bérébu jàngukaay yi maanaam daal ay daal mbir yu bëree bëri yoo xam ne ñàkka nañ ko wala sax amuñ ko euh, si seen li nga xam naal moo di rek daal jàngukaay boobu li nga xam naal moo di daal ay jafe-jafe yu mel ni li nga xam naal moo di ay dëkkuwaay yoo xam daal daal méngoowuñ ak li nga xam naal moo di jamono ak li nga xam naal moo di ay tabax yu màgget a màgget yooyu yëpp nag joytul na ko wala joytu na ko euh, si kanam yi ki nga xam naal moo di vice président bi Fatoumata Diallo Tambadeng bi moo tontu Fatoumata Diallo Tambadeng di vice président bi moom it bi nga bi moo tontu ki nga xam ne moo di Mr Diallo xamal na ko ne daal sa daal di taxaw si rek nu a gaawee ndaje moomu bokk na si daal lu toll daal si ay daal ñi nga xam daal ñoo daal ay daal ñoo xam daal ñu fa doon jàngee ñu bëri si ñoom daal si bés boobu daal lañ jeexal seen i jàng ñu jox leen nag li nga xam daal moo di seen ab lijaasa di wane ne daal ñoom nag jeexal nañ li nga xam daal moo di seen a ñu wéy ak yéen ba si li nga xam ne moo di xibaar yi si benn ndaje moom tamit li nga xam daal moo di daal daara ju kowe jooju di Gambie collège eh, jël nañ ab raaya daal di ko jébbal ki nga xam ne rek si rek daal Momodou Touré Dabo moom bàyyi defal yàlla la nga xam ne daal daf dee faral di dimbali ay bunta yu bëree bëri fii si biir réew mi eh, si bekk li nga xam daal moo di ndaje moom nga xam ne Gambie collège ñu ko doon amal si lañ daal di yëkkati ab raaya jébbal ko ko si rek daal taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw daara jooju di Gambie collège eh, di leen dimbale si rek lu bëree bari bi nga xam xamee nag mu ngi rek daal di jël raaya bi si turi si euh, Mamadou Touré Dabo ki nga xam ne si Mr Fofana euh, bu Vision Development Foundation gërëm na sant na waa Gambia collecté nag dina wax na ne daal li nga xam ne moo di kuréel yi Mamadou Touré Dabo bi ñu xamee ko rek si Vision Development Foundation dinañ continuer euh, bu baax a baax di jàppale daara jooju di Gambia collège te sax wax na ñu si ndaje moomu li nga xam ne moo di daal kuréel googu jël nañ daal ay computers yu baree bëri yoo xam daal daal lañ ko jébal daara ju kowe jooju di rek daal Gambia College ñu wéy ak yéen ba léegi rek si li nga xam ne daal moo di xibaar yi suñu ay ndaw yoo xam ne dañuy yëngu si wàllu football te sax ñoo xam ne daal seen i at daal weesuwut li nga xam daal moo di ñaar fukki at ñoom nag ñoo daal di jël ab raaya wala sax ab ndam daal lañ daal di jëlee si réewum daal li nga xam daal moo di daal Liberia si daal ab daal li nga xam daal moo bo xamne ñu ko xamé rek ci wafu lu tollu ci juroom ñetti ay réew yo xam ñu ci rek afrique ño fa dajé won foofu si réewum dal li nga xamal modi liberia ñu doon xëccu nak ben dal li nga xamal modi abraya way nak wax nañ ne suñu dal ay ndaw yo xam ñu ngi yëngu ci walu football bi rek dal ñu xamé len ci under 20 euh, young scorpions wax nañ dal ci si rek li nga xamal modi jongante boobu foofu si réewum liberia gambia dal ño mujjé dal di jël li nga xamal modi rek ndam li bi nga xamé nak ñibisi nañ ni ki demba ci dimanche bi bi ñibbisee nag li nga xamante moo di waa réew mi euh, teeru nañ leen bu baax a baax dalal leen wane seen kontaante ak seen mbégte si euh, li nga xam naal moo di euh, ndaw yooyu si daal li nga xam naal moo di jëf wala ndam ji nga xam ne moom nañ am si di diwaanu daal Liberia mu di daal seen daal mu di daal mbir moo xam ne daal réew mi nag yëpp ñoo si daal di kontaan te wax nañ nag suñu ay ndaw yooyu di rek under 20 young scorpions wax nañu nag dafa mel daal dafa am daal ay yeneen i jongante sax yoo xam ne mu ngi leen di xaar si rek lu bañ a ne sax si rek fukki fan yi ak ñett si weeru mai dinañ am na ah, daal ab jongante boo xam ne dañ ko am ah, seen diggante ak réew bi ñu xamee si Benin te nag loolu wax nañu nag dina xew fii si biir dinga ah, nga xamaan moo di réew mi si bayal bu mag bi nekk foofu si diwaanu Bakau ñu wëy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi muy jóge ko fi ci uh, Gambian uh, Talents Promotion uh, sen xibaar yi nga xam mo moo lëmbi réew lañ leen di dal di baxé ni ki nga si Alpha Ousmane Diallo mom Alpha Ousmane Diallo nga xam momit dafa taxawon sampon dendam pour ut place yi liñ xamé rek si passins si diwanu bi Kama Area Council si rek taxawayu independent manam wëru wuton momit ci si parti wax nañ momit jamono ji dafa seppi dendam dal wax nañ nak li waral nak mu dal di ko seppi nak ñi ko fisa jiital sax ñoo di daal màkkaan bi ñu xamee euh, si Independent Electoral Commission moom nag moo binda màkkaan boobu nee nag moom nag parewut daal pour rek bokk si li nga xam naan moo di jongante yooyu te nag daal màkkaan bi ñoom it ko li nga xam naan moo di mbir moomu nga xam ne moom la def maanaam daal seppi daal ndënd bi nga xam ne moom la sampo ne daal dafa bokk si jongante yi daanaka daal fi mu nekk ni daal moom Alpha Ousmane Diallo mun nañoo wax ne daal moom it daal bokkatut si li nga xam naal moo di jongante yi suñu sukkandikoo si suñu ay naataango bi Standard News Paper ñu wëy wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi ambassadeur bu réewum Amérique maanaam ambassadeur bi nga xam ne moo toogal réewu Amérique si biir réewu Gambia ñu ne ko rek si Patricia Patricia Alsop ambassadeur Patricia Alsop moo yëkkati ay kàddu de di leeral li nga xam daal moo xew bu yàggoon maanaam doomi réewu Gambie yi nga xam ne ñoom lañ delloo si jëlee leen foofu uh, si réewum Amérique moom Patricia Alsop wala ambassadeur uh, Patricia Alsop lii nag mu ngi ko doon leerale uh, si ab daal programme bi ñu xamee si checkpoint muy faral di am si l'émission yi li nga xam naa moo di réew mi wala daal indi ay leeral si lu aju rek si li nga xam naa moo di daal doomi réewu Gambie yi nga xam ne ñoom lañ dee faral di delloosi di leen jëlee foofu si réewum Amérique moom nag indi na indi na ab leeral ne nag li nga xam naa moo di mbir moomu nga xam ne moom la réewam di réewum Amérique def loolu nag loi moo leen ko may maanaam sarta leen ko may maanaam daal bu nit ki nekkee sa réew te nag daal li nga xam daal moo di daal euh, jëfam daal moo di xet a sarta am nga daal right bi wala am nga yelleef bi euh, pour delloo ko waat si réew bi nga xam ne moom la soxee ko mu ne Gambie ñoo xam ne dëkkuñ ci réewu Gambie buñ xëccee sarta Gambie am na ray pour delloo waat leen ci seen réew yi nga xam ne moom lañ jógee mu ne nag mbir mi daal noonu la demee manaam daal ñi nga xam ne ñoom lañ delloo si waat daal réewu Amérique dañ jàppane daal day xëcc sarta loolu waral nag ñu rek daal di leen delloo si waat suñu sukkandikoo si ay kàddoom moom ambassadeur Patricia Alsoup leeral yooyu nag la daal di indil suñu sukkandikoo si suñu ay naataango di Standard Newspaper ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi eh, koo xam ne moom lañ toftal eh, si ki nga xam ne moo jiite eh, daal mbootaay àddina si xamee si United Nations ki nga xam ne ki ko jiite ki ñu toftal si moom ñu xamee ko rek si UN Assistant Secretary ñu xam xamee ko sax si Miss Gaba Bebak wax nañu daal moom nag dina am daal ab tukki nemmeeku boo xam ne daal dina ko war a amal fii si biir li xam ne daal moo di réew mi te nag wax nañ nag loolu nag dina tàmbali juróom-ñaari fan jëmbe juróom ñeneenti fan si weer bi nga xam ne moom lañ nekk moom kilifa googu di Miss Gaba Beba wax ne nag li waral mu ñëw fii si biir li nga xam ne réew mi dafa daal rek mbir yoo xam ne moom la war a daal di càmbar bu baax a baax fii si biir li moo di réew mi ah, na si li nga xam daal moo di dundini li nga xam daal moo di tuut tànka yi nga xam ne ah, ñu ngi si biir li xam daal moo di réew wax ne nag rek li nga xam daal moo di tukkib nemeeku boobu ah, dina daal daje ay kilifa yoo xam daal ay kilifa lañ fii si biir li nga xam daal moo di réew mi te nag wax nañu nag li nga xam nag moo waral mu ñëw fii si biir réew mi mooy daal ay rek mbir yoo xam daal euh, dina ko war a càmbar si rek daal euh, biir euh, tukki nemmeeku boobu noonu suñu sukkandekoo si suñu ay naataango di rek daal voice news paper ñu woy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi ñoo xam ne ay jàngakat lañ maanaam ay students lañ nekk si daara ji kowe ji nga xamee wala daara ji nga xamee si muslim high school ak tamit daara ji nga xamee si Saint Joseph high school wax ni daal ñeen ñeen xam daal ay jàngkat lañ foofu maanaam ay students lañ foofu nag dañ leen daal di jàngal daal lu aju daal si xeetu xam-xam bi nga xamee si mathématiques ak li ñu xamee daal si science ana daal yan njëriñ la am pour rek nit war koo daal di jàngal ñi nga xam ne ñoo leen doon xamal loolu daal moo di mbootaay bi ñu xamee rek si Dow Chemical West Africa Global Company mu daal ab daal mbootaay boo xam ne nag si réewum américa lañ daal di nekk waaye nag daal seeni ay daal jëwrin ñoo ñëwoon fii si biir nga xam moo di réew mi nemmeeku ji ñaari daara yooyu na ñaari daara yooyu di Muslim High School ak Saint Joseph High xamal daal jàngalkat yooyu nga xam ne ñoo fay jàngal lan mooy njëriñu daal xeetu xam-xam yooyu ñu xamee euh, si mathématiques ak li ñu xamee si science euh, pour rek daal ñu rek bañ koo daal di foyantoo daanaka daal wax nañu daal loolu nag ay xeetu xam la yoo xam ne képp koo xam ne daal jàngal nga ko yow nag di nga am njëriñ lool si si ta biir bi nga xam daal moo di askan suñu sukkandikoo euh, si suñu ay naataango di rek daal voice news paper ñu wéy ak yéen ba léegi si li nga xam ne moo di xibaar yi nga xam ne mooy lëmbi réew mi jógee ko fii euh, euh, euh, ne mosoon naa amee nambal tànk bi ñu xamee si managing director maanaam daal mosoon naa nekk borom kër yi màkkaan boobu ñu xamee si nawet mu di màkkaan bi nga xam ne ñoo dee joxe ndox ak courant fii si biir réew mi koo xam ne mosoon na koo jiite ñu xamee ko rek si Mr Alhaji Konte moom Mr Alhaji Konte moom nag xam xamal na kuréel gi ñu xamee si commission of inquiry wala jaane commission bi mu teewee si seen kanam xamal na leen ne daal ki ñu xamee si Mohamed Bazi moom nag di ab daal doomi bi Libani Liba Libanon ak tamit doomi euh, réew bi ñu xam ne si Belgium mu di nag ab businessman bu mag fii si biir nga xam ne mooy réew mi moom Mohamed Bazi ki nga xam ne moo di Alaaji Conté teg na ay tuuma si moo di Mohamed Bazi mii moom nag moo daan wala sax moo jàngal eh, ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew di Yahya Jammeh moo ko jàngal daal ni daal di sàccee eh, si li nga xam moo di koppar yi li nga xam daal moo di askan wi eh, moom Alaaji Konte xam la ne daal am daal ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne moom Mohamed Bazi labaj na ko fii si biir li nga xam daal moo di réew mi te nag daal ki nga xam ne sax moo fi nekkoon njiitu réew moom Mohamed Bazi daf ko daal di jàngal ana daal naka la ñoo daal koppar yi li nga xam la moo di askan wi moom Alaaji Konte kaddu yi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 daal daal euh, yi nga xam ne moo ëmbat euh, taskatu xibaar yi nga xam ne daal naka lañ koy daal di soppee te nag wax nañ daal si li xam daal moo di daal ndaje moomu bokk si daal député te yu bëree bëri yoo xam ne teewoon nañ li nga xam naa moo di ndaje moom nga xam ne taskatu xibaar yi euh, ñoom ñoo ko doon amal lii nag mu ngi xewoon ñaar fukki fan yi ak juróom ñaar jàpp euh, ñaar fukki fan yi ak juróom ñetta euh, si rek ab hôtel boo xam ne mu ngi fii si biir réewu Gambia suñu sukkandikoo si suñu ay naataango di Daily News ñoom ñoo fésal li nga xam ne moo di xibaar yi ñi nga xam naa ñoo di ay baykat nekk si rek diwaanu na nekk foofu si rek daal si rek daal ab tooli maalo bi nga xamee si jaxali paca Eh, ñoom nag baykat yooyu nag ñooy jooytu de di oote lu jëmale ko si li nga xam ne daal moo di nguur gi ne daal nguur gi nañ leen taxaw bu baax a baax gëstu leen gannaaw bi nga xam ne daal eh, seen i tool yi maalo wow di jaxali daal li nga xam ne moom lañ daan bay si maalo wala sax liñ daan am eh, buñ góobee nag dafa mel ni amatuñ ko li ko waral nag ñoom baykat yi ñooy wax ñu ne daal dafa mel ni nguur gu bees gi daal dañ leen daal di jox gannaaw loolu waral nag li nga xam daal moo di daal mbéyteef bi daal demeewut noonu si seen li nga xam daal moo di tool yi maalo boobu suñu sukkandikoo si li nga xam daal moo di baykat yooyu suñu euh, suñu ay naataango di Daily News ñoom ñoo fesal li nga xam ne moo di xibaar yi euh, mbokk yi loolu mooy woon xibaar yi seen mbokk Ibrahim Gueye euh, moo leen ko doon jottali si kàllaama wolof jox leen dox daje ba alxames bu soobee suñu borom bu juróom benni waxtu yu tegalee fanweeri minute jaajëfal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jàppoon si xibaar yi ba mun a sotti jaa ngeen jëf